يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء لي دواما خيره يا الله يا من لا salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi man la Ahmadou Amar moom sëñ Fallou Amar. Ahmadou Amar moom sëñ Fallou. ah mbégte ak sant ak cant yàlla ndax euh, woote ñu wuyu si la moom dafa jafe ndax woote bi ba ñu wootee ni ñu wuyu si rek kon ak cant yàlla day daal di taxaw sant moo jiitu. dañuy sant yàlla ba pare door cee teg leneen ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin di tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene ci yéen fas yéene ci génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw lii nag du gulet ndax yàgg na ndax suñu maam moo ko njëkk a taxawal suñu waajur tamit yeggale ba tey jii nii ñu fekk sëñ laa nekk fi ñu nekk fekk moom di woy ci ndigalam muy woote màggalu waajuram muy Serigne Mor Faarima di suñu maam waaw Mhm. sëñ Abdourahmane ndax loolu mhm. waaw waaw ci lu wér wér ndax yoonu murit moo baaxoo noonu ndax yonent bi moo waxoon ne aw yiw du denc ci aw xetam tànk ndaw ñaa ngi wekk mag ñi mag ñi di yërëm ndaw ñi nee na loolu fépp fu mu am aw yiw du fu mas di jóg dafa waxoon ci hadis te Sëñ koo jàngale ci ay téeréem ne laa yiw du denc umaata sama xeet bi xayri ci yow maadaama fekk mi ngi sax saxiroo ndaw ñi umaata di wekk kabiroo mag ñi wa kabiruha mag ñi di yaram saxiruha ndawni te loolu fuma am aw yidu fuma mas di te yonu murit non la mas di Serigne Touba limu yor limu jangalé ak njabotam ni ñuy doxé moy meilleur moy meilleur exemple bu musulman wara a jël diko doxé te loolu mo nek ci aw yonam ndax ginaaw bi fi jugee serigne Modou Moussa mi mag da won ñeneen ñi ay rak top ñi ci wara top top ci te loolu mo fi bayyi yiwu ba tay ji ni tey jii kër goo dem ci kër Serigne Touba ndax fii kër Serigne Touba la ñu doon fàttaliwaat sa waajur hmm. ah, Serigne Fallou. de li ñu mën a wax ci moom bari na waaye li ci ëpp solo mooy ab taalibe la woon ku ragaloon yàlla la te nangu woon koo jaamu daan jiitaloon ay magam toppoon leen bëggoon ab dëkkam fonkoon ko lool loolu rek da yaakaar naa ne moo ëpp njëriñ ndax bu ñu doon wax ci moom ay jëfam moom yaakaar naa ne fi la ñuy fanaan. ndax ab tab la woon loolu moom <laughs> yaakaar naa ne koo ko laaj mën na laa seedeel lu mel noonu kon nag wax ci moom ndax lim lim doon suñu waajur day mel ne ak tàggal wala dañ koy wala xeet yooyu noonu te loolu lañ ciy bañ moo tax daal liñ mën a mën a jàpp lépp njariñ mooy ku ragaloon yàlla la ab taalibe la woon. Mhm. gën a góorgóorlu gën a takku rek gën góor góorgóorlu gën a takku te xam ne yoonu murit nii rekk la ak taalibe rek moo fi mën a jariña ñu gën a laxasaayu suñu waajur fa mu tegoon tànkam dafa fonkoon magam jëloon ko def ko sëriñ muy sëriñ gumba sëñ Mourtala mi it kazalika kon tey jii ñun li ñu war ñun ñëpp mooy nga di gën a tàkku gën a farlu te xam ne sëriñ bi moom ki ko fi toogal mooy sëriñ Mourtala ñu wéy ci ay ndigalam di ko bàyyi di bàyyi ay tereem ndax sëñ Abdourahmane mi suñu mag lii rek lañu digal amul leneen lu mu ñu digal na ñoo te bàyyi ay tereem ndax yoonu murit moo ni doxe jëfe dañu murit jëfe ndigal ndigal li yàllaa koy joxe suñu borom moo santaane mooy digle di tere ñu digle ñu jëfe ñu tere ñu bàyyi te lii moo nekk fépp te lii mooy liy jariñ ndax adduna bi boo ci nekkee góorgóorlu daf ci am solo ndax yónent bi mu ñëwee ay jikko la doon salaat ndax ba ko yàlla di tàgg tàggewu ko sant tàggewu ko juddu tàggewu ko lenn lu dul jikkoom ba innaka la ala xuluqil azim la ko yàlla tàgge te moom ba muy ñëw wax na ne moom yàlla da ko yónni ngir mu yee yeesalaat jikko yi kon jëf ju baax dafa am solo jikko yu baax dafa am solo ndax yónnent bi ci la rawee ñëpp Serigne Touba dañ ñaan la ku la gën a gëm yàlla gën laa rafet jikko ku la gën a gëm yàlla gën laa rafet jikko ndax Serigne Touba coolee bari bu yónnent bi jàll kenn gënu koo rafet jikko moom Cheikh Ahmad Bamba ndax loolu la jàngale moom Serigne Touba ndax fi yonent bi tegoon tànkam fa la tegoon tànkam moom Serigne Touba ndax yonent bi moo wax ne bu ñuy peese jëf yi dara yemu faak jikko ju rafet te Serigne Touba waxaat na ko nee na képp koo xam ne yaakaar nga ne nga dajeeg sa borom na ngay jëf-jëf ju rafet kon loolu dafa am solo te ñu koy bàyyi bu bàyyi xel bu baax baax a baax te xam ne fii tamit ci kër Serigne Touba yi rek la bokk ñuy wax taalibe yi ne fii kër Serigne Touba la te Serigne Touba li mu santaane mooy ñu jaamu yàlla tonoon koo topp. loolu rek la santaane wootewul leneen ndax suñ tuwaa moo xam ne wallaahu yàlla nee na wa rasul ak yónnent bi nee na ajjaaru ñoo gën a yooyee ñoo gën a yayoo bi an yurdi ci ñu sàkk seen ngërëm jamial muminin ci mboolem mbindeefu yàlla yi kon loolu dafa mat a bàyyi xel xam ne balaa ngay sàkku ngërëmal keneen jiital ci yàlla ak yónnent bi boo bëggee am beneen ngërëm boo jiitalee ñooñu nag beneen ngërëm boo am baax na waaw hmm. الصديق بجاهه سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز رب والجبار yaa mutakabbiran lahu takabburan